suñu mbokk sénégalais ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax saa su nekk topp bi ngeen di topp seen TV l'original si biir internet bi Rufisque këru kaw tey dañuy yeew ak naqar bu metti metti si juróom-ñaari waxtu si suba si mu am benn waay boo xamante ne ñàkk na bakkanam gannaaw ba nga xamante ne teer bi xar na ko ñaar ñu bàyyi la ngeen reportage bi leen defal si yëf yi. bi ma di ñëw si laa gisee teer bi taxaw ñu ne daa am ku gaañu quoi noonu laa ko yeggee. am na ñu wax ni ne waa day. dafa xaar ba train bi ak si rek am na ñaari booy ko gis ñu ne waa ji ba daa daa bëgg xar koi mu daw dugg teer bi ñëw jaar si kawam mu xar ko ñaar quoi. corps bi dañ ko senn rek ñaar morceau la woon. bon corps bi ñun ñu bari lañ parce que dañu doon xëy di ñëw borom oto yi taxaw di di xool ñun tamit ñu xool am na ñu di ko filmer di xool nii quoi man tamit damaa ñëw rek xool. corps bi mu séparé en deux rek laa gis quoi. dama xëy daal di dem. marché laa doon dem ba ma demee marché gis naa fii oto sapeur pompier yi taxaw mais comme dama yaakamti woon ma ne xaarat ma dem gis naa fi tamit ay ay élèves yu toog mais xaw xamu lan lan moo xew te ba ma demee marché ñëw sama rakk bi ne ma teer bi de yëg nga ne dafa am ko fi gaañu ma ne ko teer bi loolu mënul nekk ndax teer bi wan wan nañ nit ku nekk fi nga fi nga war a yem wan ne nit ku nit ku nekk fi nga war a yam pour bu teer bi ñëwee nga mën na nga mën a yéeg mu ne ma day am na am na fi gaañ ma ko noonu loolu moom mënul nekk. comme te c'est la première fois soog di fi di fi am ba te teer bi amee ba léegi pour nit ñi di bàyyi di bàyyi xel limite bi ndax si li ma li may dégg nee na am na benn tere bu jaune bu fa nekk ñu ne nit waru fa taxaw kon cela veut dire que ni nit waru war a mën a taxaw foofu ba teer bi di ko fekk. tey ci suba teel daal laa egg si boor teer bi comme à chaque matin su may xëy foofu laay jaar bon bi ma xëyee gis nit ñi bëri. ma laaj qu'est-ce qui passe mais nit ñu bëri mënuñu ci woon wax quoi bi ma ñëwee ba fii nag ma laaj sama doom sama doom ne ne foofu la jaaroon ma laaj ko lan moo xew fii ñu ne daal ci suba teer bi bi mu demee ba jub si dafa am benn waay boo xam ne jënd na ticket ba pare taxaw mais dafa xaar ba train bi ñëw rek mu daw rek traversé ko mu ñu ne ko lan la ñii dana ah kii na ku lii ne moom ku xaru rek moo war a mun a def lii parce que à chaque fois bu gars yi bu kuy ñëw même man sax jaar fi maintes reprises di dem si teer bi mais buñ ñëwee dañuy gars yi ñu nekkoon ci boori terre bi ñu ñu yor affaire yi sécurité terre bi ak yooyu dañ lay wax ligne orange boobu bu ko bu ko kenn dégg nañ taxawee côté bii mais waa ji nag ci li ma déggee man ci li ma wax moom dafa jékki-jékki rek bàyyi ba train bi egsi rek mu gaw rek traversé ko train bi rayee ko noonu quoi. en tout cas daal à chaque matinal nit ñi daal à chaque fois boo ñëwee foofu nag nit ñi encore en tout cas nag nit ñi ngi def seen liggéey ñu lay wax yemal fii yemal fii yemal fii mais nag ku bëgg a aussi kenn mënu ci dara waaw moom dafa bett nit ñi. parce que loolu kenn mësu ko fee gis dafa jékki-jékki rek traversé terrain bi rek terrain bi jël ko mais nag euh, c'est dommage quoi xam nga waa ji ku bëgg a xaru moom c'est tellement difficile pour nga bañ ko mun a xaru parce que dafa am ñoo xam ne dañoo garder seen sang-froid dañ koy denc seen biir waaw doo ko mën a xam dañuy jékki-jékki rek def si action bi or que c'est déjà trop tard mais man li ma xam nan gars yi gars yi moom ñu ngi def seen liggéey moom waaw dëgg yàlla su fekkee ah, dëgg rek moo neex yàlla ñu ngi def seen liggéey boo ñëwee dinañ la wax bu laal bi taxawel côté bii bon fekkee mag la ñuy wax dañuy wax taxaw mag ñi nañ nekkee côté bii mais nag ku bëgg a xaru aussi kenn mënu ci dara moom bësam ñëw na la may appelé daal nag nit ñi gën a def vigilance bon nit ki aussi mun na di départ boo yow yow en tant que yow kuy kuy xaar bi bu ñëw boo ko jisee muy def benn moyen boo xam ne nii mun nga ko jege nii su fekkee mun nga ko sauver bu demee day forcer boppam mun nga ko téye nga baña a dem yow mais bu la ëppee doole aussi da nga koy bàyyi mu dem. li tey doon na loo xam ne euh, lu tiis la. et muy loo xam ne métti na askan bi yëpp euh, ndaxte tey ci suba booru 7 heures 30 euh, à quelques 300 mètres euh, gaaru Tëngéej la mbir mi xewee donc benn terre moo laal benn doomu aadama ba mu ñàkk bàkkanam mu doon loo xam ne lu metti askan bi la surtout ñi tàmm jël terre bi heure boobu parce que tey ji bi may déplacé wu pour ñëw Rufisque on a perdu 45 minutes à Thiaroye mais on ignorait les raisons xamuñu woon raisons yi li ko waral mais après la ñu euh, xamal ni euh, voilà mbir bi moo am et puis on a reçu le communiqué ñun ñëpp bon bi ko gars yi di joxe mu donne euh, lu malgré effort yi ñuy wax ni moom lañ def pour raison de sec pour pour sécurité mettre les populations en sécurité je crois que SETER ak SENTER war nañu yokk encore vigilance même les zones yoo xam ni du garbi. mais parce que doomu aadama moo doy war parce que fi mbir mi amee nan la fa nit mën taxaw ba train bi di ko fa fekk bo xamé ni toutes les dix minutes train warna jall mais moment bu muy taxaw bu fekkente ne sécurité bi daf na liggéeyam war nañ ko mën repérer ben lancer alerte li ñuy ñaawlu moy manque de vigilance bobu alors ñi ñaan li li ni mel vraiment mu bañ fi amati parce que li metti na quoi caméra surveillance euh, voix bi yëpp lay jël bép nit bo xamné ne fa nek boo fa nekkee war nañ la mën gis war nañ mën gis parce que boo jógee Bargny bé Tëngéej vraiment war nañu mën am ay caméras de surveillance yo xamné ne war na mën a jël euh, personne étrangère au service bu mëna taxaw ci côté raay bi tout en sachant danger yi ci nekk sensibiliser nañu dans toutes les gares bo démé ñi ngi lancer encore di rappeler encore nit ñi les mesures de sécurité donc li ni li ni mel franchement don na lo xamni il faut que ñi xaar euh, enquête yi pour ñi xam cette personne là à cet instant précis lan la fa doon def lan la fa doon def ba train bi di ko fa fekk alors nañ dellu siwaat encore ci mesures sécuritaires di ñaaxaat population yi avec beaucoup de vigilance par rapport justement danger yi leen di guette euh, ci rail bi parce que train bi ñëpp xam nañu ni mu mel ni mu sensibiliser et tout na nit ñi jël seen matuwaay pour que li mel vraiment bañ fi amati waaw bu ñu zéro accident ak terre bi